monsieur le maire du Thiaw pour yéen xam ngeen li xew li xew du dara lu dul élection législative pour que yéen ñëpp ngeen voté Benno Bokk Yaakaar bu président Macky Sall pour ñu may ko majorité à l'Assemblée nationale pour que nag mu ñëw moom mu ñëw dellu si ànd ak man mii ñu ñëw jàppale leen nit nag boppam dañu dañoo def suñu yéene bàyyi leen ak seen conscience ay nawle rek lañu nag ay dinaa ko lekk su ma duggee ci mbañ gàcce ba def lu ma neex defoo lu la neex ndax yàllaa ngi la tiim moom am na liggéey man am naa liggéey wutuñu député wutuñu dara lu dul président am majorité jàppale leen mu jaarale ko ci loxoom ñu dellu si fii ñëw jàppale leen jàppale seen njaboot loolu dong moo ñu fi andi. di nuyu waa Mbambara plus précisément cité ñax ñun nag dañ fi ñëw bu ngeen gisee ñu ñimee fee ñëw madame Thiam mi sama sœur la di nit ku baax ku am fayda parce que ñun du ñu jóg di seeti koo xamante ni duñu ñun defuñu politique politicienne dañoo jóg pour jàppale ànd ak président Macky Sall pour développer Sénégal muy ku am fulla fulla jooju nag laa gis ci moom mii ba mu jaral ma ma def vingt deux kilomètres jóge fale ñëw fii mu wax ma ni ma am naay avec ak yeneen ak yeneen ma ne ko man lenn rek laa bëgg dañoo jëm ay élection jigéen ñi ku nekk xam na fulla ak fayda ak fas-fas bi nekk ci ñoom ma ne ko bépp avec bu ma fi fekk incha allah moom dina ci jox dina la jox cent mille francs pour lenn rek lii du dara dañ leen ko nuyoo mais pour yéen seen bopp yéen avec yi avec nee nañ avec yi yenn am na cinquante personnes cent personnes dañoo bëgg avec yi ñëpp ci nekk membres yeeg yëpp ñu ànd jàppale ko bu ngeen ko jàppalee jàppale ma jàppale président Macky Sall ci du ngeen ko réccu xam nga kii xam nga kii nitu kàddu la nitu kàddu la kii lu mu leen wax dina ko def ca incha allah bu ñu gañee lii matul sax ndékki dinañ fi ñëwaat jàpp leen baax mais il faut que ngeen sensibiliser seen morom yi fi nekk ñëpp jàpp ci ba président Macky Sall gagné Thiès ville gagné département bi mu am une majorité à l'Assemblée nationale donc lii moo doon suñu tànk tey ñu ngi leen di sant. ginnaaw bi ñu nuyoo. waa Mbambara cité ñax précisément dama ñëw tey seet si sama sœur merci dama ñëw seet sama sœur ku nekk xam na ko ci fulla ak fayda di leen wax yéen waa Mbambara cité ñax su ngeen amee ku mel nii jàppale leen ko du ngeen ko réccu parce que man ku nekk xam na fulla ji ci président Macky Sall fulla jooju moo nekk ci man ca moom moo nekk ci moom looloo tax tey ma déplacé wu jóge Tassette ñu nekk à peu presque trente véhicules ñëw pour seet ko pour dooleel parce que dëkk bi ay leader ngi fi waaye tey dañu ñëw pour jàppale pour do indi suñu pierre à l'édifice xam naa ni Abdou Mbow fii la dëkk Siré Dia fii la dëkk ak keneen ak keneen mais ñun ñëpp président Macky Sall la ñuy liggéeyal looloo sax ma déplacé wu képp koo xamante ni xam naa ko xam ni mën nañoo indil ay voix dama ñëw seet si ko pour que le 30 juillet fii ñu naan diw diw wala moo ko moom ñu xam ni kenn moomu ko parce que yéen àdduna ku la jàppale nga jàppale ko te président Macky lu bëri da ngeen ko réere def na ko ci département bi def ko ci commune bi chantier yi ngeen daan dégg genn gi pare na lenn li c'est en li ci des si néew donc il faut que yéen yéen ñi nga xamante ni yéen a ne ci ginnaaw madame Thiam jigéen ñi ëpp ngeen junni ngeen jóg avec yi parce que moom ak ñoom COFEM euh, euh, ñoom bu Seynabou bu Dieng ñoom ñëpp ñoom may Maymanu Dieng dama ànd ak ñoom ak étudiants yi étudiants yi ñëw nañ fa 700 étudiants lañ. di ànd def ay porte à porte loolu lépp buñ ko defee c'est pour intérêt Thiès parce que tey bu fi président Macky gañe di ngeen gis déjà li muy def macha allah defu ko ci département yu bari mais dina gën a yokk loxoom bu ko defee yéen ñi bu boobaa retombé ci yéen lay dugg donc lii ma ñëw tey di seeti madame Thiam en réalité pour yéen la quatre rek ngeen mën a may président lu mu bëgg majorité le trente juillet yéen jigéen ñi. yéen xale yi na ñëpp àndandoo ngeen takk seen digg bu ñu passé élection yi ba gagné bu boobaa ñëw leen ci madame Thiam ni ko ah sa waa ji ñëwoon na fi lii ak li ak lii bu boobaa di ngeen xam di ngeen xam ni que politique ñun léegi politique bi ñuy def mooy politique de développement man yëngatuuma ci lutul tul développement xaw ma luy politique politicienne développement développement développement suñu déplacement tey. c'est pour ñëw ànd ak yéen ba bu ëllëgee ñu mën a développer Thiès dans sa globalité fii ci Mbambara ak ci Cité Ñax donc lii moo ñu fi indi tey di la wax madame Thiam di courage nga gën a takk sa ndigg nga wax ak soxna yi j'insiste billaahi bu ngeen ko defee du ngeen réccu man xamewu leen ma ay caaxaan liggéey rek liggéey liggéey liggéey donc jàpp leen ci te je compte sur dem leen ngeen jëli seen carte yi dem leen jëli carte yi le 30 juillet soreetul amin amin soxna si. am borom yi itam ñu ngi koy sant di ko gërëm ndaxte lii lépp mënoon naa am ta luñ ci boole boole nañ ci soo ba tey mi ngi ñuy lijjanti mi ngi ñuy toppatoo suñu doom yi ci këram la ñuy ne fa ñuy lekke fala ñuy naane fala ñuy fanaan kon loolu yaatoom moo ko indi su amoon na nu muy demee benn du fa dugg sama doom de fa lay yendu fa lay fanaan galaaye ngi nii lu nekk la ko jaar lu ne la koy def jërëjëf waaw li Adama di wax rek la ñuy dëggal ndax euh, Lambaréné mi dañoo dëkk ak moom dëkk bu rafet dañoo dëkk ak moom dëkk bu rafet voilà. donc dama leen di wax ni actuellement liñ fiy liggéeyal ci ay jigéen mu ngi toll ci 1200 femmes 1200 femmes bu ñu duggee di def ay porte à porte ak 700 étudiants yi victoire bi da ngeen ciy jouer bu rëy. te 1200 femmes yooyu yéen a ngi ci biir donc loolu laa bëggoon préciser. waaw ah, damay wax te yeggalagu ma ma ne Mame Baro mii dañoo dëkk ak moom dëkk bu rafet kon yaakaar naa ne lu mu nekk suba ba ngoon jot ñun dañ ciy nekk waaw ndax dafa faale ni ñi yëg nit ñi am ci bu meloon neneen kon ñun bu ñu woowee tey ñun duñu ñëw waaw wante nag ñun ñu ngi ci ginnaaw ak suñuy carte ñun genn wàll gi ñu si bëri jëli nañ suñuy carte ñu fi desewul carte bëriwul te incha allah ñun ñëppay voté ji waaw man ña ma daan jàppale bu njëkk dama daan dem toog te buntu uh, école jàmm gan di toog ñuy ñëw di voté ci ba keroog ñuy jeex waaw te noonu laa koy doxalawaatee ren incha allah buñ ci yàlla yóbboo. comme niñ ko defee rek dama ànd ak sama sœur bi vraiment kontaan trop dañuy wër avec yi nekk fii ñu jàppale leen wax ak ñoom ñu xam ne lii contact bu sérieux la moom dama jóg incha allah dinaa ko jàppale bu ngeen ko jàppale du ngeen ko réccu loolu rek mooy li nga xam moom laay wax man du ma politique politicien ñun politique de développement la def ku nekk xam na ni président Macky Sall la fayda noppi ak liggéey moo ne ci ñun moo ne moom donc li ñu leen di wax rek jëli leen seen carte yi le trente juillet ngeen voté ba bureau yi nekk fii lañ daan wax ñu renverser tendance bi lii moo tax ma ñëw jàppale sama frère ak sama sœur yi nga xam ne ñoo ne ci commune bi pour que incha allah ñu am ndam ndam loolu c'est juste pour que le président Macky Sall am une majorité à l'Assemblée nationale ba programme bi mu yor muy ps e bi ak leneen leen ñu mën ko dérouler donc bu am fayda am rigueur looloo tax mani manit ku mel noonu ku am valeur yooyu xam naa ni que politique bi léegi nit ñi yeewu nañu parce que politique politicienne daf boor a jeex politique de développement bi nga xamante ni président Macky moom la invité nit ñi mooy lii ñuy def daf ñu wax ni dem leen ci gox ak goxaat yi ngeen dimbali nit ñi moom la ñuy def man maa jiite secrétaire exécutif di PNDL man la donc suñu liggéey ak lim ñu sant mooy seeni coona ñu ñëw satisfaire ko tey nag dañ fi ñëw rek prise de contact xam ne élection yaa ngi ñëw mu wax ma ma ni ko il faut nga jàppale ñu mun ma dama la yóbbu fa nga xamante ni mooy fa ma dëkk lam ma doon wax gis naa ko bu ñu compter ñun am nañ fii ci Thiès 1200 femmes yoo xamante ni ñu ngi ñuy defal porte à porte ak 700 étudiants yi ñu ngi nii pour que président Macky Sall mën a gañe Thiès parce que ñun département bi dinañu gañe Thiès ville aussi dañoo bëgg a gañe donc incha allah bu ñu gañee fee gañe fii président Macky Sall yéene bu rëy la am pour le département de Thiès mais particulièrement la commune chantier yi fi nekkoon genn gi egg na leneen li c'est en cours liñ ci démarré wu sax bariwul waaye waxuma eggale mais ñun ñi nga xamante ni ñoo leen nekkal ca wetam dinañu reyante ba mu indi fi leneen ak leneen lenn dong fi mu toll suñu bopp la ñuy defaral ñun waa cees il est temps que nag ñu yeewu xam ni que fii ñun ñoo mën a jëlal suñu destin en main mooy ki nga xamante ni daf la amal njariñ nga jàppale ko mu gestu la bu ngeen bëggee président Macky Sall ñun ñi ne ci wetam ñu mën a dem di jëli di indi dangeen koy jàppale su ngeen ko jàppalee seen bopp ngeen jàppale rus nañoo ñëwaat fii taxaw fii fekk ngeen jàppale ñu ñu gañe ñu fi waxaat bu boobaa da ngeen di fekk bala ñu fay ñëwaat boobaa dañu fekk ñu jëf fi lu rëy rëy rëy donc loolu du waxu politicien ku nekk xam na ni soxna si man ak président Macky Sall duñu wax waxu politicien dañoo bëgg ngeen am confiance ngeen dem jëli seen carte yi le 30 juillet fii parce que bu résultat yi génnee dinañ xam lan la madame Thiam ak ñamu àndaloon ñamu seeti woon ànd ak moom du caw maire de Tassette keroog ca àllarba ja lan lañ indi touche donc dañ ko ñëw pour jàppale fii sama frère yi fi nekk ab Abdou mbaw Maodo Malick Mbaye Siré Dia ñun ñëpp benn lañu ku nekk rek foo am sa nit da ngay dem nga waxtaan ak moom parce que ñu benn carte yéen it bu ngeen jógee fii ngeen waxtaan ak ñi ngeen xam ñëpp seen frères seen sœurs yi ngeen defal ñu ay porte à porte maama yaakaar ni 1200 femmes bu ñu defee porte à boo ko multiplier par 10 12000 femmes la 700 jeunes yi ku ci nekk war ngaa mën a indi fukk muy ñaata muy 7000 7000 plus 12000 tendance bi fii dañuy daal di gagné donc maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen jox rendez-vous. le 30 juillet incha allah bu boobaa yàkkamti naa woo madame Thiam ba félicité ko asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu.